ne dafa amoon koo xam ne mag la mu kàllaf la xam naa jamonoy nawet la nee mu gàddu mbuusam gàddu yetam di dox ba ci wetu euh, benn tool mu jàdd fa tool ba fekk fa génn benn waay joo xam ne daal moroomam doomam la muy bay xam naa mag la itam nag dax am na lu war a mat fanweeri at moom kooku waaye nag mu nekk nag koo xam ne ca dëkk ba dañ koo weg lool boroomas tuut la boroom juddu la ku ñu xam la xam ay waajuram boroom ab yar la itam ñu bari respecté ko ca dëkk ba nga xam ne la muy nekk nekk xale mooy boroom dëkk bi góor gi daal di agsi nuyoog moom jàmm santeeg moom na ko dama doon ñaan ndox de ku ko mën a may mu daal di tànk ndox may ko mu naan ba noppi góor gi ne ko dama laa bëgg a dénk ñetti kàddu nag bala maa dem bëgg nga bàyyi xel kàddu yi bi ci jëkk mooy sa teraanga bul koy bàyyi ginnaaw mu ne ko waaw mu ne ko sa njël koy bàyyi ci loxoy jigéen mu ne ko waaw mu ne ko wax juñ la bool bu ciy duggati mu ne ko waaw mu ne wërëñ góor gi dem ñu nekkoon ak moom ne ko waaw euh, góor gi doon wax ak yow moom mu ne ak góor gi day ñëw na wax ay waxam rek am na daal ay baat yu ma wax ay wax man daanaka euh, jàpp ma ko sax wax dëgg bu wér ndax euh, di yi ma doon wax ma weesu naa foofu ñu bàyyi ba teg lu man ñaari at ba ñetti at moom mbooloom yokk na surga yi bari nañu yàlla dogal ñu nekkaat ca tool yi nekkaat fa ñu nekkoon di liggéey ba boori ñetti waxtu maanaam trois heures dañ daan indi añ nag ba nee ba trois heures añ bi dikkul góor gi nag mënatul a xool surga yi mu daal di wëlbatiku ñëw ci dëkk bi ne day gàttandu si añ bi bi mu dikkee bay jub kër gi dajeeg ndaw si ak loxoy neenam moom jabar ji mu ne ko waa yow ana añ bi mu ne ko añum lan da nga faa bàyyi woon dépasse maanaam bàyyi woo fa njël mu ne ko bàyyi mu fa njël xëy ci kër ga waxuma ko ba nëgëni si daal di wëlbatiku ne léegi lii rus na ko waxi daal di séen nag mbooloo mu bari ndekete foofa mu jëm dafa am ngént lu fa am keroog mu ne nag na ñëw ca ngént la bu dikkee wax ñu tibbal ko fa bool yóbbul ko ko ca surga ya ndax rus naa dellu ca kër ga ba mu dikkee nag nuyoo ñu xaw koo négliger ña nga fa fekk nag ab waxtaankat ca néeg ba ma ngay waxtaan bay waxtaane naan gis nga sunu dëkk bi kii nga xam ne moo ko yore way gi nekk ci moom ak fulla gi ak mbaax gi di ko tagg daal di ko kañ di ko tagg di ko kañ ba wax ci moom wax joo xam ne wax ji ëpp na mu jékki-jékki ne ko ah, loolu yi nga wax de wax dëgg nekkul ci moom li tax na xamuñu ko mooy dafa sol yi yëre liggéeyukaayam maanaam solowul te ku mën a solo la waaye nag comme dafa jóge ci ay tool rek ñëw ba mu waxee lool nag nekkoon ko nag loolu yi nga wax day wax dëgg yàlla euh, kooka day baax na waaye lii nga wax nag nag ëpp na nekkul ci moom de maanaam mel ni rek gis nga nit ñi dañuy jey nit dangay mën a faj bopp ñu gaatee ko moom jàngal joo ko yët mu faju lu mel noonu la gis nga maam Thierno bi mu waxee loolu nag daal ne na nga xam ne nag loolu nga wax nag moom wax dëgg kooku baax na waaye loolu nekkul ci moom te kii doon waxtaan itam ñam doon waxtaan gëm ko dañu daal di amuñu seetlu daal di jàpp nag waa ji te mooy borom dëkk bi dóor ko dóor yu metti pant ko ba génne ko kër ga mu génn dem ba ca ginnaaw kër ga ci genn garab nag mu toog fa métit wi jàpp na ko sonn na di xalaat ne tuuti góor ga ko waxoon loola mel ni dëppaat na fa mu demoon te diggante mat na ay at sol la mu soloon gàddu la mu gàddoon fekkaat ko ca kër garab ga mu toog mu ne ko li ma la waxoon lépp day defoo ci dara waaye man waxi mag laa la waxoon te waxi mag weddi gis waxoon naa la ne la sa teraanga bul koy bàyyi ginnaaw sa bu bul koy bàyyi ci loxol jigéen wax duñ la boolit bu ci dugg ñett yëpp def nga ko sa bàyyi ci loxoy jigéen moo tax nga xëy ci kër ga dépasse bi jeex te xamoo ko da bàyyi woon sa njël ci loxoy jigéen sa teraanga bul koy bàyyi ginnaaw yére yu baax yi ñu la xam del grand mbubb yi nga daan sol ak sa maxtume sa jàllaa bi boo ko soloon tey waa dëkk ba dañ laa gëm gëm laa tax ñuy waxtaane sag baax ka doon wax bëgg la ak gëm laa tax mu doon ko wax kon bu xamoon na yow du la dóor waaye dangaa bàyyi sa ginnaaw sol col gu woyof dem ci ciw xew wax duñ la bu ci dugg la nga soloon la mooy woyof woyof boo dugg doon seen wax joojee itam duñ la dóor waaye gis nga ko ñett yi ma la waxoon lépp defoo ko te waxi mag